Fani wa dalal jàmm bu baax di ñaan tànk yi la indi sunu boroom fulal la ko defal la ci barke barkeb alxuraan mel nañu li ñu fekk rek mu nekk sunu ndono muy alxuraan ji nga ko jox day mel ni jox nga ko boroom ak yéene ji kaamil bi am ak fa mu jóge ba ak ci say loxo ak fi nga ko indiwaat boo ne fonk naa jëmm ji lii dana ko firndeel wax nag day mel ni moom itam bor lañ koy fay ndax gàmm gii di rek na doo ngay bind kayel boo xam ni ci fukki fan lañ ko bind mu jox ko si mun kon boo indi waata kayel jox ko ko yàlla na te daara ji li nga wax léegi li ko sëñ bi wax léegi rek boo Cheikh Issa ñëwaatoon diwoo woo kum gërëm bu ko njëkki wut du ko mujje ndax euh, daara fukki at ak benn am ci ren fii wax ne maa ngi ci juróom fukki gone ak juróom yu fi mokkale alquran kon day mel ni at man am naa juróomi gone maa ngi ci ñeent fukki kamil ak ñaar yoo xam ñeent fukki yëpp génn nañ daara ci ñaar ki fi des te amut ci juróom fukki yooyu ak juróom ku ko ci amel aw juróom juróom par weer wala fukk wala wala àll bu par juróom wala weer at na naan amut boobaak léegi seenu dund seenu wér-gu-yaram ba seenu col koo gàddu tabaski li gën a jafe mooy benn gone du dem te mboolem loo xam ne mu demoo seen kër am ko fa lu ko mu jox leen ko ci daara ji xar yoo xam ne benn bu ci nekk boo ko doon jaayee lu mu gàtt gàtt da ko jaay da ko jaay juróom fukk da ko jënd juróom fukk mu jox leen ko kon lu ko waaye defal ci alxuraan ji day mel ni jox nga ko lim moom jëmm ji nga xam ni moo waroon yëkkati kàddu mu Cheikh Amadou Rafahi Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal yaakaar naa ku miinul jëmmam tam yàgg nga nopp muy jëmm joo xam ne du tey jële mos ñëw fii ñëw na fi ñëwati fi isaa daxaakum limaa yuhikum rek moo ko andi tax moom kon xam na ni ci farata ak sunna rek la teg tànkam kon bu daggee yitteem akub sëriñu daara ni mu xate ñëw ci barab mel nii kon mel na ne ki ko woo xam na lim ko woo ba mu ko ci sëñ bi ne mi ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom guddal sa fan te wéral ko bu baax ba yéene ji nga am ci diina ji suñu borom may la kàttan nga mott ko ni nga ko

xéewal bi ñu xéewal la ñu fekk waxtu wi ndax kat yi waxtu wi ay at yi ginnaaw gëñ naa am ñetti at li ko waral mooy jafe-jafe jamono lu mel ni bas mi fi jaaral ñoo ngi sant borom bi subhanahu wa taala ci baax gi mu ñu baaxe ñuy nab nami ci jàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi gërëm mboolem ku fi teew di leen masawu coono di jaan yàlla tànk yi ñëw yi ak tànk dellu doon lu yàlla gërëm di sant yàlla bu baax a baax nag di sant kilifa yu teew yi ngir yàlla ak bokk góor góorgóorlu waat bu baax ci lool ndax sëriñ bi kilifa gi ni mu soññee li li bëgg-bëggam mooy képp ñoo ci barab bi xam nga ni leen rek moo ko yitee mooy alxuraan barab bi li muy yaatu yaatu yàpp ñoo fi ñooñ alxuraan ñoo fi nekk ak ñi leen ak ñuy dimbali ñooñ alxuraan ñi leen toppatoo ci seen ci seen ci seen kii kon nag moom daal ci lii la nekk mooy bëgg-bëggam ci lay xëy ci lay gont mbokki yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sangub sang yi Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a yàlla ba gën a jaadu di jiitu ci nuyoo ba siyaar bi ak ñaan gi ci Amadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te aw yaramam ak mboolem kilifa yi diine yépp di siyaara mboolem ko ne jataay bi góor ak jigéen mag ak ndaw mboolem kilifa yépp rek jiital seen seex mu seex Abdul Ahad ak mboolem kilifa yi mu àndal ñëpp njëkkante ak waxtu bi rek ci liggéey bi xam ni gannaaw yàlla mbooloo mi buñ fi dajee looloo tax ñu daje fi muy barabu alxuraan bii ñuy jànge mel na ni daara ji ñu ngi ko ubbi woon la 11 juillet 2012 kon day mel ni mi ci fukki at ak benn ci ren bi mu ubbee ak léegi li fi dugal seenu doom toll na ci téeméeri gone ak ñaar fukki gone ak ñeent te yépp di ay góor ak juróom-ñaar ñoo xam ne ay jigéen lañ diggante boobaa ak léegi nag mel na ni am na ñu fi bàyyi te seen alxuraan ak gut te daara baaxoon na loolu waaye ñi fi jote mokkale alxuraan ci diggante bi may wax léegi tool na ci juróom fukki gone ak juróom yoo xam ni fukki at yi fii nañ mokkal alxuraan te li cëpp ñu ci jotaay bi jàkkaarloo ñoom dëkk bi ñu nekk rek di ndogal bi ñu ubbi daara ji lim bi ñu fi dugaloon ci daara ji lim bu njëkk ba ñaara ci mokkalul alxuraan njës ñëpp mokkal nañ boo limee total bi mokkale ndogal ñaar fukki gone ak benn yoo xam ni fukki gone yi ak juróom-ñaar yëpp ndogal lañ yeewoo ñeent ñi ñoo génn daara ji ñoo génn ci dëkk bi waa ci dëkk bi lañ eh, jaare dugg ci daara ji ñaar fukk ak gone ak benn yi duggoon ci dëkk bi daal jaare ci ndogal ci dëkk bi jaar ci daara ji ñaar fukk yépp wala fukk ak juróom-ñeent yëpp mokkal nañu alxuraan ba baax léegi itam bind nañ fi ñeent fukki kaamil ak ñeent yoo xam ni mboolem ñu ko bind gone yaa ngi di taxaw ñi ci ëpp ñu ngi ci jataay bi ñeent fukki yëpp ñu ngi ci soxe ñu ngi ñu ngi ci loxoy seeni waajur ñaari kaamil ñoo def ci daara ji te benn bi egg na benn bi xaaj na kon ñeent fukki kaamil ak ñaar jot nañ ko bind ci daara ji bi ñu ubbee daara ji ak léegi te ñun ñëpp bu dee fukk ak juróom-ñett yëpp fii dem dara baa siin te yaakaar naa ñi ci ëpp ren fañ nekk ñoo fa doon naafila kaamilu alxuraan bi loolu ak cant mënu ko romb wax gi nag liñ ci jublu mooy nit boo ko wooyee ba mu ñëw war nga koo leeral taxawaay bi nga am ak liggéey bi nga nekk te boobaa léegi mboolem ñi ma lim amut ku ci warlul daara ji kilo suukar mbaa libaru ceeb lépp borom daara yi moo ko warlu ak ñoom ngir jëmm yàlla ji ngir jàng ngir alxuraan ji kon loolu day daara jaaru bu waajur yi teewee ñu xam ne daara jaar nii lay doxe lim bii ñoo fi nekk lim bii ñoo fi jot jaar lim bii ñoo fi mokkale alxuraan te mboolem gone yi ma ko fukki at am amul ko am ci daara ji fukki at amul ñi fi mokkal ñëpp ki fa gën a yàgg ak mokkal ñe juróomi at la fi am door a mokkal waaye ñi ñëpp ñaari at ñetti at ñeenti juróom lañu am mokkal loolu nag ndimbalu yàlla mënu ko romb ndax daara xam ni fukki at ak benn lay door am nga am limbu toll noonu yaakaar naa mboolem ko jàngale alxuraan war nga xam ne loolu euh, ndimbalu suñ borom la waa du ak njàmbaar kon ñu ngi jéggul ñëpp di ñaanal sunu wajur wi nga xam ni moom la subhaanahu wa taala dimbali mu am wërsëgam te amu ci benn xarab àdduna bu dul delluwaat ko yàlla ndax damaa wax ni boo gisee ma taxawal daara ji damaa gis jamono ji ñu toll jàng alxuraan mokkal ko te mokkalewu ko ci internet yi daa yombatut te ñëpp amuñu doole yi jël seen doom yóbbu ca internat ba mu jàngi ñu ngi di ko fayal kon naa jël sama wërsëg li ma yàlla jox ma dimbale ko ñi ne maa leen tane ngir seen doom mën a jàng alxuraan loolu nag jullit ñëpp war nañoo xam ni taxawaay boobu la ñu a am yëg ni ki taxawal daara ji doomu aadama rekk la te doomu aadama daa am mu baaxoo mooy dund ak dee kon jullit ñëpp war nañoo gestu ni liggéey bi nekkul liggéey boo xam ne dañaan sëriñ jàng rek koomam déedéet loolu tardement ak pertement ak yaafus la ndax man amila saalihan fali nafsi yi kon lu waay jël sa bopp la buñ nee sëriñ Ñang mën na ko ba tax kilib suukar ba ni nga ne doyu ko dara yaa ngi yaa ngi xar ca bopp tuyaaba jàpp naa ne kenn ku nekk ba nga jógee sa kër war nga naa nga bu lii bërub suukar mbaab kilib maa ko jox borom daara ñu mën ko mën a ko ci dongee ndax loolu sa tuyaaba la bàyyi sëriñ lu mu def ci daara ji lu mu rëy rëy téere jëf na ko subhanahu wa taala di bind bi jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ni mooy kilifa mooy kilifa jataay bi muy sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ moom sëriñ Abdoul Ahad ñu ngi koy nuyu bu baax ak mboolem kilifa yi nga xam ni euh, teew nañ fi ñu ngi leen di nuyu pour kullan bismihi wa yi kenn ku nekk ñu ngi koy nuru ci ci turam ak santam te du ko jox wàccuwaayam xam naa ngir jëkkanteeg waxtu wi rek euh, ginnaaw bi ñu dalalee mbokk yi Euh, mu def nag ñu war ne ñu war leen a berndeel bernde gi nag mi ngi jëm ci xel yi ak ruu yi xam naa jataay bi mi ngi war a amee ci ñaari tomb benn tomb bi muy at tasawuf wa cheikhul qadim sëriñ tuuba ak tasawuf tomb boobu nag ki ci àndal ku ñu xam la ci réew mi ndax boo ñu ngi ci war a ànd ak al ustaas Tahir Fall al ustaas Tahir Fall nag mi ngi bàyyi ko piir pir bu alqaadi Xamar Fall kon kooku yaakaar naa doonul koo xam ni ci wàllu xam-xam ak jàng ak jàngale ku ñuy war a la ndax moom wane na boppam ba noppi oustaz Tahir Fall nag comme ni ma ko waxee ku ñu xam la ci biir réew mi ci yar ak jàngale ak jàngale ci ci yar ak jàngale moom nag xam-xamam mi ngi màcc ci xeeti njàngi yi nga xam ne fukki ni alxuraan la ba léegi mooy li ma waxoon rek moom ci daara la dëkk nga xam ni mi ngi def taxasus taxasus xam-xamam mi ngi màcc ci alqiraat alhashr muy fukki xeeti njàngin yi kon yaakaar naa bu ñu demee ba dugg ci waxtaan wi e, danañ gis ni suñ taahir mi kat li tax ñu woo ko fii mate na ko sëkk keneen ki ci war a àndal ci beneen tomb bi muy Serigne Moustapha Diop Ndar Serigne Moustapha Diop moom it ku ñu xam la ci biir réew mi ci yar ak jàngale ndax sëñ Moustapha Diop euh, bu ñu nee sëñ Moustapha Diop doomi sëñ Mor Diop ca Ndar lool rek yaakaar naa doy na loolu rek yaakaar naa bu ñu ko waxee doy na sëkk sëñ Moustapha toog fii war ñoo waxtaanal li war jullit ñi ci alquran muy waajibul muslimina tijaaha alquran kon bu ñu bu sëñ ñëwee fi tey ku fi war a ñëw la euh, ci am njàngam ni ngi wattoo alquran ci daaray waajuram comme ni ñu koy waxoon sëriñ Mor Diop Ndar fa la jànge alquran ba wattu ko bind ko ginnaaw bi it al majalis yi ñu xam nii ci réew mi mboolem téere yi ñu fay jàng yëpp sëriñ Moustapha jàng na ko ginnaaw bi ca la laxas dem ca réew Mauritanie euh, ginnaaw bi it bi mu fa jógee Serigne Moustapha amee na baccalauréat ak licence ak magister euh, ak doctorat fële ca euh, réewum Libi ba léegi moom mooy directeuru école bi ñuy wax tey Taysirul Hasir fële ca Touba ba léegi it daara ji nga xam ni ne euh, Serigne Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla na ko fi suñu borom gën a yàggal. te gën koo yokk kàttan may ko ak wér daara ju bees ji mu sos it sëriñ Moustapha it moo fa nekk mu mudiru diraasaat kon xam naa ngir jëkkanteeg waxtu wi rek dañuy jox sëriñ Moustapha Diop kàddu gi bu ko defee mu ñëwal ñu ci comme ni ñu ko waxee ci ginnaaw rek waajibul muslimiina tijaa alquraan warteefu jullit ñi ci alquraan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bokki jullit yi way bëgg alxuraan yi di ko jàngale di ko jàng di ko jàngalu di dimbale ñiy jàng ka jàngale fii ci Touba ndogal jam ak fudul Touba ndogal jam ñu ngi leen di nuyu bu baax fii liggéey fi nekk fii waxtu sànkoowu fi sama waajur yàgg ci daara lool te xam ko daana wax ne xam alxuraan mi ngi tàmbalee ci firi ji man alxuraan mi ngi tàmbalee ci far ij nga xam ne kon xeebu ca dara kon juróom fukki donga ak nangam ñeen fukki tari alquran ñeen fukki kaamil génn kooku di mbir la li mu waxit ne maanaam ki fi gën a yàgg ci njàng juróomi at la fi jàng kooku ab liggéey la yal na yàlla yokk barke barab bi leerug téere bi ak barkeb téere bi yàlla na wàcc ci barab bi ak li ko wër saa su nekk may wax ak téere bi de warees na ko gëm ci suñuy xol warees na ko jàng ci suñu làmmiñ warees na ko bind ci suñuy loxo waris na koo dégg di ko settantal ci suñuy xel waris na koy jëfe ci suñuy cër waris na koo yëkkati fexe ba àddina yëpp jot ci di ko wooteel yu di ko jàng ci làmmiñ di ko bind ci loxo yi gëm ko ci xol yi di ko dégg di ko settantal ci xel yi di ko jëfe ci cër yi te di ko wooteel saa su nekk lii ay wartiif la yoo xam ne fu ab jullit nekk wartiif la ci yow nga am foo féete téere bi ci barab yi alquran nag ni ko suñ boroom melale woon kitaabun azizun wax ne laa yatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilum min hakimin hamid da di mbir moo xam ne moom quran suñ borom da ko jële fu sori wàcce ko fii fi jaam yi muy seen njariñ di seen làmp làmpub xel di làmpub xol doon làmpub zahir làmpub baatin di defar seen mbir di ko jubbanti mbir mu mën a doon ci seen mbirum àddina ak seen mbirum alaxira nga xam ni laa yatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi mooy téere boo xam ne suñ boroom nee na ak yàqu ak yàqu du ko bàyyi koo fenn ak yàqu du tàbbi ci moom mukk du ko bàyyi koo ci genn wet lépp lu yàqu ci àddina lépp lu yàqu ci àddina ci dunduk nit ki moo xam dunduk àddinaam moo xam dunduk diineem lépp lu ci jagat yi Qur'an dafa dikk ngir jagal ko lépp lu yàqu Qur'an dafa dikk ngir jubbante loola defar ko inna haadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam gannaaw suñ borom nag da ko wàcc ci biir jaam yi ngir mu defar kooku suñ borom dina ko aar ñoŋal ko ba nga xam nag yàqu moom du ko bàyyi ko fenn des di téere bu ñoŋ di téere bu sell di téere bu kawe di téere bu leer di téere bu bari barke loolu faw lay doon ndax suñ borom du ko fi indi ngir muy defar liy defar moom yàq waru ko bàyyi ko fenn suñ borom joxe ci benn assurance boo xam ne jullit bi nga xam ne dafa téye téere bi xelam war naa dal ndax aaya bi euh, sëriñ bi jëkk a jàng sànq suñ borom di wax ne fastamsik billazi uxiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa li qawmik wa sawfa tusalun muy aaya boo xam ne aaya bu fasaax la aaya boo xam ne si borom yëkkati na ko jëme ko ci biddiif yépp borom bi dafa wax ne fastamsik mooyal waxul sax jàppal amsik jàppal bokkut ak moyal ku nekk xam na ne mooy ñaari loxoo koy def nga tatafu ko bokk ko kepp ko say bët ne ci li nga moy say nopp ne ci sam xel ne ci nga dëpp ko sa xol kooku mooy moy loolu la borom bi wax ci alxuraan moy la ci wax ana ku ko wax sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy almuallimul awwal jàngalekat sëñ daara bu jëkk bi sëñ daara bu jëkk bi mu ne ko moyal ki lii nga xam ne moom laa sotti ci sa xol nazala bihi ruuxul aminu ala qalbik jibril da koo sotti ci xol sallallahu alayhi wa sallam soteet ba nga xam ne ngelaw ak poussière ak jinn yi sàcc wax sax seen yoon néewu ci lépp ngir ñu mal ko mu ne ko moyal ci lii nga xam ne moom laa sotti ci sab xol mooy lu ci teg innaka ala siraatin mustaqim na nga xam ne dog nga xàlluwu jub wi jëm si ci man jëm ci samay ngërëm jëm ci aljanna yow dog nga ko kon ki nga xam ne kii dafa téye alxuraan dëgg-dëgg téye kooku nga xelam dal fekkoon ne kuy xëy di làmbuk mbaax la na xam ne daj na ko sooy làmb nag mbaax di ko làmb di ko jeexaat fu ne ba xëy daj ko na nga bu baax ki téye alquran mooy ko moom la borom bi assuré na ko innaka ala siraatin mustaqim yow day dog nga xàll wu jub bi nga xam ni moo jëm si ci lépp loo bëgg ci aw yiw ëllëg alaxira teg ci wa innahu moom téere bii la zikrul laka samay kàddu la yoo xam ne yow yaa ko tax a jóg sallallahu alayhi wa kon téyal ba mu dëgër mel ne ku ne gees ne ko wali qawmika ak sa xeet wi ñoom ñoo ko tax a jóg kon ñëpp nañ téye ba mu dëgër waaye nag la diisal mbir ma mooy wa sawfa tusaluun des na leen ko laaj loolu rek lañ doon séenu gis nga ba mu tàmbalee ne fas tam sikk di dénkaane ni mooy lañ xamoon fa mu jëm kilifa am na loolu bu la koy dénk nam la koy dénki moom nga xam ne dala ko dala ko laaj bu nga sori walillahi almasalul ala kilifa gu toll na yàlla bu nee ngoyal na nga séenu ne wasawfa tusalun dama la koy laaj kon bu mu la sori kon moo la wax sallallahu wa sallam le zikru lak moo la wax xeetam yu yëpp ñëpp bokk ci yam nag góor ak jigéen mag ak ndaw sàmba ak ak ku weex ak ku ñuul penk ak sow ñëpp ko wax wali xaw bik teg ci ne wa sawfa tusaluun dama leen koy laaj kañ lañu koy laaj bis yowmal qiyaamatul akbar ab jaam du romb yàlla benn tànk fekk morom ma lu dul mu laaj la na nga def ak téere bi wa ma kitaabuka na nga def ak alxuraan ci bàmmeel lañ lay tàmbaleek moom te dootu la bàyyi mukk fig pinc mu yàlla dikkul moo tax may wax ne wa sawfa tusaluun des na leen ko laaj ak baatu fastamsik moyal mooy tax alxuraan kenn amu ci coobare bokk yi coobare bu ma neexee jàpp bu ma neexee bañ jàpp bu ma neexee téye bu ma neexee bàyyi diw bàyyi diw déedéet ku nekk ci ñun dañ koo gàcce alxuraan xoolal mécc mu la neex tànnal bàyyi ma ca des defal maçon bàyyi menuisier defal mécanique bàyyi bàyyi paj demal nga fay bàyyi le mécc mu la neex tànnal waaye mécc mu mën a tànn di ci yëngu ci àddina na nga ci boole téye téere bi ko kenn sañu ko bàyyi kenn ndax dañ ñu cee gaa kenn tànnlawuñu ci kon jurit bu nekk ngay góor ngay jigéen na nga bàyyi xel kon wa sawfa tusaluun bi maana anta masuul bi maana responsable nga ci téere bii ci sàmm ko kon loolu mooy li may tàmbalee wax ci ku nekk ci nun na bàyyi xel ne mas'ul la responsable la bu ñu laaj alxuraan borom bi nee na ko dana la ko laaj kon yaa ngi ànd ak sam xel sa sago waajalal bisu laaj ba ku nekk ci ñun na waajal bisu saw fa tusalu ndax day dikk nga góorgóorlu ba nga xam ne bis bu la ko sa borom laajee dañ ko tontu tontu boo xam ne dana la fa musal ca la garagal dana la fa mosalit ci lépp loo xemmem fii nag àgg goo fa wàcce googu ak téere bi ma jël si wax ne yii war na suñu digganteeg téere bi mooy di ko jàng di ko jàngale di ko jàngalu di taxawu ñi koy jàngale ak di ko jàng di ko jàng di ko jàngale di ko jàngalu tey taxawu ñi nga xam ne ñoo koy jàng ka jàngale ñu juróomi mbir di ay waajibaat di ay warte suñ digg téere bi waaleykum salaam wa bu njëkk bi mooy di ko jàng li li gën di ab jaam di jaamoo yàlla li gën di ab jaam di jaamoo yàlla mooy al jàng alxuraanul karim sëriñ Tuubaa dafa ne wa man araada alqurba min mawlaahu falyaqra alqurana la yansaahu ku bëgg a am alqurbu min allah te mooy jege yàlla te suñ borom day ab jàmm war na koy sàkkoo jege ndax koo xam ne soo nee wonkee soo wonkee moom nga bëgg mu jëkk nga bëgg mu jëkk fa soo ñàkkee soo wéetee soo woppee soo tiitee saa su ne yaa ngi koy soxlaal dangay fexe ba mu jege la ba mu ko dekkoo yaa rabbi mu ne maa ngi nii qaribun ujibu da'wata daa'i izaa da'aani waaye day fekk sa dikk ak moom nga rafetal ko ba noppi suñ fàllu daana wax ne radiyallahu anhu jokkoo jiitu joote kon nañ jokkook yàlla dëgëral suñ diggante rattaxal ko Sëriñ Tuubaa nee na képp ku bëgg a jege sa borom bañ ko bàyyi xultu wa man yurid ridar rahmaani fal yusbitan tadabbur alquraan yi yéen ko bëgg ngërëmal yàlla borom bi na nga saxal alxuraan di ko jàng di ko settantal kon jege yàlla sa borom ak laq ay ngërëmam alxuraan mooy yoon bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne man qaraa xarfan min kitaabillahi fa lahu bi xasana ne ki nga xam ne ku jàng wenn xaraf ci alxuraan am nga ci tuyaaba wal xasanatu bi ashri amsaaliha te yiw wu ci nekk sa borom dana ko ful fukki yoon kon nga xam ne waxiisul sax ki nga xam ne dafa jekku alxuraan xereñ ko waaye ki nga xam ne kii moom su ubbee téeréem xaraf rek la mën a jàng ba siin miim alif laam laam ha bu fekkee ne lool la man na nga xam ne kooku mi ngi géej mi ngi xuus ci géejugu yàlla mi ngi xuus ci jaamu yàlla te xaraf wu mu wax wu nekk si borom bindal ko tuyaaba te tuyaaba bu ci nekk dina ko ful fukki yoon kon lu waay di jaamu yàlla di ci wut yàlla borom bi na xam ne alxuraan moo ci jiitu Sëriñ Tuubaa de bi muy wut ngërëmal yàlla di root leerug suñ borom di ko jaare ci werd yi di ko jaare ci turu yàlla yi dem na ba mu yàgg suñu boroom ne ko yëpp ba ko bàyyil yëpp te nga jàpp alxuraan képp mu daldi di tuub bàyyi yëpp wax ne kitaabuka al azizu saara wirda wali nafa an ni idaaya tarda keroog la bàyyi mboolem mbir di yi wër wirdu xaadir wirdu tijaan chazali ak yeneen keroog la ko bàyyi fab alquran képp def ko bi wirdam subaat ngoon di ko jàng di ko jàngalu di ko bind di ko bindulu xafistu zikraka bi qalbi wa yadi wa bi lisaani la wax ma wattu téere di ko wattoo sama loxo di ko bind ko bindulu wattoo ko sama làmmiñ di ko jàng ko jàngaloo wattoo ko sabab xol di ko gëm di ko settantal di ci woote kon suñ digg ak alxuraan mooy fokk ñu di ko jàng jaamoo ko yàlla te xam ne moo jiitu ci lu ñu jaamu yàlla julli gi gën a màgg ci jaamu yàlla yi sax du wir bu fekkee ne alxuraan nekku ci ñaareelu tomb bi mooy suñ digg téere bi mooy di ko jàngale ndax jàngale alxuraan moo tax téere bi jóge ci maas gi dem ca maas gële te loolu moo taxoon suñu borom wàcce ko ci kaw suuf te mooy ñu koy jokkalante di ko jokkalante ba bam koy soow kon jàngale alxuraan dafa nekk war tiif ci xeet wi di warte foo xam ne fardu kifaaya la luñ luy fardu kifaaya mooy bu fekkee ne am nañu koy taxawu ba mu doy du ñu yem rek ci am ñu koy taxawu déedéet kifaaya bu fekkee ne lim bi koy taxawu doy na su boobaa ña ca des wàcc na leen mën nañoo dem ci leneen waaye bu fekkee ne amagutug doy kon ñépp war nañoo taxaw ba di koy jàngale doy muy benn su fekkee nag faf sax dañ ko taxawee wut. su boobaa mu nekk lut nekk fardu kifaaya waaye fardu ayni la mooy farata la ci jénn jëpp jëmm ju nekk su boobaa la kon ñëpp am bakkaar bu ñu xëyoon alxuraan kenn jàngaleetu ko ñëpp maasa di am bakkaar di am bakkaar ba faw kon dafa bokk ci warte fii ñu jàngale alxuraan jàngale alxuraan ak doon lu foor ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo yor mécceem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax rasulullahi mécceem moo doon jàngale alquran kon ñi koy jàngale ñoo yor mécceem moo tax may wax ne ñoom rusulu rasulillahi lañu sallallahu alayhi wa sallam hum ahlu tabligh balligh ma unzila ilayk ji ko boroom waxoon ne ko jot lil téere bii ma wàcce ci yow na dem bu taxaw na dem ca kaw ci kanam mu di ko def ba jóge fi saxaaba yi di ko def ba jóge fi ñi topp ci ñoom ñi topp ci ñoom ba fi tey jii ñi nga xam ne ñoo jàngale alxuraan ñoo yor rolub tabliir moo tax may wax ne daara yi seen wasifa seen euh, liggéey mooy jot dina dem téere bi bu taxaw te téere bi kat nañ bàyyi xel ne mooy ruuxu diine ci diine yi islaam bu dee jëmm mu am bopp ami nopp abi tànk ami loxo am cër yépp mat sëkk di jëmm nañ xam ne ruux gi tax ñu di ko limaale ci ne muy dund luy dund la muy quran karim kon taxawu fab wërsëg fab xalaat bennoo fab xel yi jëme ko ci luy tax daara yi dem ca kaw ca kanam kooku dafa war mooy lii nga xam ne moom la sëriñ jàng mii def liggéey ba am wul sëb walew fab ci ak wàll boo xam dañ koo jagleel di suuxat ngir téere bi dudd kooku mooy ñeenteelu taxawaay bi suñ digg ak téere bi nañ ko bàyyi xel bu baax jamono jii may wax ne ñii séq daara ba ku nekk jàppee daara léegi ak tumurankam jeex te gis nañ ne daara léegi ñi ci bàyyi koo jàngoon bàyyi koo fa force lañu force front bu am doole lañu ci jàppale daara te gis nañ ko ñu ngi joué rôle bu am solo ci suqali daara yi ci réew mi moo tax daara yëpp ñu ngi organiser seen ay ressources ci santé mooy na fa génne woon te muy lu am solo kon nañ ko gën a organiser di gën a gën a euh, euh, ñoot di gone yi fi jàng ñu gën a bokk bokkoo gën a booloo ngir jàppale daara bi des mooy ndey daara ak bàyyi daara ku jàngul alxuraan ku nekk di yar boo sañoon fa koy def loo xiif du fa am mar du fa am rafle du fa am tilim du fa am ak lëndëm du fa am wopp du fa am kon nag bàyyi daara yi ndey daara yi nañu nekk ak beneen front boo xam ne day nos seen bopp organise seen bopp taxaw temm tiim daara ji kenn ku nekk di def li mu man tey bu ko ñëpp sotee léegi tumuranke gi jeex lu kenn man ñaara ko ko dàq damay wax ne daara gën a yomb ba defar ci mboolem barab yi nit nekk lu tax sa kër bopp gi sa loxol bopp lii nga ko defaree ba lépp lu fa war a nekk ne fa si benn loxo daara moom fukki loxol waajur ñoo fa nekk ñaar fukki loxol waajur ñoo fa nekk téeméeri loxol waajur ñoo fa nekk kon war nañ koo mën a defar ba lépp lu daara ajowoo mu am ko su boobaa daañu jam ñaari picc ci benn xeer te mooy def nañ seen ñaq ci suuxat téere suñ borom ngir mu dem ci kaw ci kanam kooku seen responsabilité la waaye it seen doom ñu ngi ko préparé la environnement boo xam ne bu set bu sell mu defa nekk di jàng jàng mu set mu sell kooku ba tey gaje nga kon ñi génne woon ci daara ji nañ leen soññ waajur yi góorub jigéen nañ leen soññ ñi ci des mooy bàyyi defal yàlla yi ñoom it macha allah fu ñu mën a nekk nañu leen sonn te woo leen ñu ànd ñoom ñëpp séq daara ji muy ah, kàddu yàlla gi dem ca kaw ci gën ci kanam ba nga xam ne du dellu gannaaw mukk su boobaa yiw yi nekk ci téere bi lépp dana des ci xeet bi yiw yi àddina ak yiw alaxira borom bi nee na téere bi lu ñu barkee la mubaarak barke bi dana fi nekk nee na nuur la leer gën a fi nee na hudan njub la njub gën a fi nee na moom isatan waaraale te day tax jaam bi du fàtte yàlla mukk boromam fàttaliku gën a fi nee na zikra fàttaliku la dafay nekk bushra mbégte la dafay nekk rahma yërmande la dafay nekk kon lépp loo xam ne meloo alxuraan la fii ko ñu ngi ko téye day nekk ci nun di ñu dundal di ñu dimbale di leeral suñu yoon di mbir addina ak alaxira nga yemale kaddu foofu di wax ne bi ma jëkk a jàng fastamsik moyal lii mooy mooy mooy kenn ku nekk sa wartiif la sa diggal téere bi mooy nga mooy kenn ku nekk saw fa tus aluun responsable nga sa diggal téere bi waajal te xam ne dañ la koy laaj kenn ku nekk na fexe na féete téere bi fenn ci gox yi ma wax wet yi ma wax te bu kenn bàyyee kenn bu kenn seetaan kon maa ngi foofu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi lan la Serigne Touba ajouté indi ci tasawuf tasawuf ngir mu yàgg la waxtaanuma ci sax nag wax dëgg yàlla ndax gisuma ne ubbi bunt bi dugg ci silsila bi fi muy tàmbalee ca al annabi sallallahu alayhi wa saxaaba yi ña ca nekkoon ay sufiyanke comme abu zarin al xifaari masalan di ko indi ba ci al imam hasan al basri sufiyaanu sawri xaaris al muhaasabi al imam al junaydi al imam al ghazali di ko rogalaatal bu mu agsi loolu damaa jàpp ne xajul ci aw waxtaan moo tax ma ma defee ni may defee di di di di di cof rek di cof di def yooyu lafin léegi waaye tasawuf bi bi mu agsee ci loxol sëriñ bi da cee ajouté da caa def ay yëf xam nga lum ci njëkk a def daf ni dama bëgg sama njaboot sama famille sama réew sama jiil jot ci yàlla te duñu sonn xam nga bu yàgg bala ngaa nekk suuf yanke da ngay nekk fóore ji man ñépp daq jàng ñëpp dégg arab dégg mantiq dégg bayaan maîtriser téere yi dem jàngi nag a risala al qushayriya awaariful maarif eh, ihya ulumuddin jàng yooyu ba pare doog a nekk tasawuf sëriñ bi ni yooyu dama bëgg nit mën a ñëw dib wolof déggul arab ma def ci dënnam lu tax mu nekk sufiyanke ma waral mu taalif masaalikat nee na lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fiiha jullu haazal jiili gaa liggéey nañ lu bari mais seen téere ya boo ko joxoon gaa ñi duñ ko jariñoo kan ci ñun moo liir Ihya Ulumuddin ba mu jeex man nag liir naa ko waaye damaa amoon kilifa gu ma taxawu liirloo ma ko te su ma ko defu doon du ko liir ba ma ko liiree ba tey it mun maa fexe ba liir ci benn juz u ba mu mat kon damaa joxe misaal ci ni jafe na sëriñ bi kon li muy li muy njëkk a def nga andil ñu ko mooy li ñuy tudde ab tayyu loolu mooy tayyu baatu tayyu di nga gis lu bari mu andi ko ci ay mbindam tayyu mooy lan mooy raccourciral ma temps bu gudd bi nit daan def ci wut yàlla ñu raccourcir ko ba da daan jameet rek dégmal boroomam loolu moo pratique loolu moo dëppook société loolu moo dëppook lu leer ci dundinu doomu aadama neel benn ñaareel bu sëriñ Touba andi mooy dafa fekkoon ñu gëm ni jamono ku la jiitu ku la mag moo la gën sëriñ Touba ni déedéet ngëneel du loolu ndax baatu ku la mag moo la gën tax na ku mënoon a nekk wàll yu ni du ko nekk day topp ci gannaaw diw rek di yagar yagari mais du déema dégmal mukk wuti yàlla amul ambition fay na ambition ñu bari mu ni déedéet yàlla li mu yor du jeex moom ci boppam la ko commencé ba mu ñëwee dañ ni kii de bokkul ci ñu jëkkoon mu ni nag wala tuxassis fadla rabbin qad ala bi zi taqaddumin faqat fa tajhala id rubbama urifatan muaxara maa gaaba an man qablahu wa asura fa tallu qad yabdu amama alwabli walfadlu lilwaabili laa litalli du ma wax loolu kon ñaareel a ngoog ñetteel bi tasawuf gi fi nekkoon sëriñ bi fekkoon ko fi opérationné wul woon xam nga opérationnel mooy lan bopp sa bopp la nga daan beru fële di jooy ak a ba yàlla di la feeñoo ak la mu lay feeñoo sëriñ bi ni déedéet yàlla dañ koy wute benn projet dangay am projet compétir bokk ci àddina wuti alal wuti lépp lu nit di wuti nga man ca ci loolu ngay ame yàlla parce que loola ca la ñuy yare nit nit kenn du ko yare ci bii atan muftaala sëriñ bi tarbawi la al bii atul la mooy nga créer benn benn benn environnement benn looy yare nit te du dëgg da nga koo créer maanaam ci misaal ma jox la misaal euh, sëriñ sëñ daara mhm. da am da bëgg ko la tarbiya waaye ma seet ni seetlu ni misaal laa joxe de man du ma du ma matuma saxu misaal laa joxe maanaam ma gis ni sa kaala gi danga nga koo bëgg bëggin wu ëpp te sa sikk yow mooy li ñuy tudde alxers walla tama hmm. maanaam sikki nit ñi dañ koy classé bëgg gi nga bëgg kaala gi tax na moo dox sa digg ak yàlla ndax bëgg lu dul yàlla bëgg gu ëpp ga nga waroon a bëgg yàlla day tax sa bëgg yàlla de du dem ma daldi ni la jox ma kaala gi te man mi la koy laaj laajuma la ko ngir soxla dama la ko laaj ngir tarbiya loolu muftaala la si artificiel loolu du tarbiya mais su ma àndeek yow dugg ci projet boo xam ne day laaj nga jaay kaala gi pour loola am xam nga sëñ Tuubaa toll na jamono joo xam ne ab téere bu mu jàng da daan bindu kaamil jox ko maam Cerno Birahim mu wër di ko jaay pour mu jëndub téere nga xam ni bi ngay summi sa kaala gi di ko jaay dafa am objectif islamique bu mel ni bi newoon ci kanamu Ousmane bu ne sa kanam ca Xaybar booy teqali ko bëgg gi nga bëgg kaala gi teqalikoo googu boo koy def di am garaatu nit ku jox boppam yàlla loolu mooy mooy euh, sew-sew la nag boo xam ne xajul ñu leeral ko waaye il faut Serigne Touba bi mu dikkee dafa yar taalibeem ya ci li ñuy tudde alhimma alhimma mooy yàlla àgg la foo xam ni la neen lu dul yàlla day tuuti ci sa bët alhimma mooy mbaax gi ngay jàng tey nag nga décider baax ko xam nga yaa ngi jàng baax yaa ngi jàng wilaaya yaa ngi ba jàng Omar ibnul Xattaab yaa ngi jàng saxaaba ya gaa ñu baax ña fa ñu jaar ak yàlla yooyu yëpp yaa ngi koy jàng waaye est-ce que mel nga ni ñoom nangu nga ni meloo ni ñoom tey nag nga ni ñii may jàng dama leen bëgg a nekk jàngatuma leen pour naan euh, sëriñ diwa fi gënoon ñun ñun dal nañu tey ci ci ci ñi waroon sëriñ Touba ñi waroon sëriñ Touba koo ci laal ñoo gën ñoo gënoon seen jamono. ku ma sa toog ak moom benn instant bu tuuti mu tarbiye laa gën sa jamono waaye ñun ñooñu lañu ñu wékku est-ce que am nañu ambition jéem a mel ni ñoom fa la problème bi nekk waxul waxuma la bëgg leen de waxuma la wékku ci ñoom loola yomb nañu loola mi ngi fi waaye am ambition ñun Sénégal dañoo bëgg nitu yàlla yi fa laay tëje kàddu gi dañoo bëgg wuti yàlla yi dem wuti yàlla ba am ko ñëw may ñu ci waaye bëgguñoo wuti yàlla loolu mooy suñu sikk si gën a rëy sëriñ tubaab bi mu amee njabootam da leen a wommat dugal leen ci projet ñoom ñu wuti yàlla ni mu koy wute moo waral ñu ñu sonnoon coono ya te liy cosaan mooy ab jullit daa war a am ambition bokk ci ñu jiite wa jaal naa lil muttaqina imaaman jàngoo ko ah wa na lil muttaqiina imaaman loolu jàngoo lu tax nga jàpp ni yow waroo nekk njiit tegoo ko fenn ci ceddo dong la tege nag ceddo dong nag ba ca des yonent bi salaa salaam dafa toog ni ab kuréel a ngi boo xam ni danañu ràmm ku ci nekk juróom-ñaar fukki junni kuréel ba mooy dañoo wéeru ci yàlla nii lañu mel tagg leen benn waay jóg ni yonent yàlla dama bëgg nga ñaanal ma ma bokk ci ñooñu yonent bi ni ko anta minhum ci ñooñu nga bokk maanaam saxaaba ya laa la bëgg a wax ni dañoo bëggoon a bokk ci ñay ràmmoo waaye xëccoowuñu woon a bokk ci ñañi ràmm xam nga kay ràmmoo moom jël na ak dem àjjanaam wóor na ba noppi pourtant yàllaa koy maye saxaaba ya dañoo bëggoon a bokk ca ñay rammoo taalibe sëñ Tuubaa yi dañoo bëggoon a bokk ca ñay rammoo ñi nga xam ne dañuy ramm ñeneen ñu waroon a dem sawara ñun nag dañoo bëgg a nekk bokk ca criminel ya ñu àtte ba bëgg leen a dugal sawara ñu ràmmuñu ñun foofu lañ bëgg a bokk loolu moo tax nag suñuy mbir metti moo tax neexu ñoo waxal moo tax neexu ñoo jëflanteel waxtaanee wu ma tam bi nag maa ngi koy jéggalu te damay dëggal li nga xam ne moom la sëñ bi wax léegi rek ni sëriñ nee na moom bëtam ci kokki la nekk loolu man ci sama bopp personnellement toog nañu waxtaan ci loolu mu ni lii mu door fii day bu ko yàlla mayee li mu bëgg dafa dem ba kokki ga nga xam ne moo nekk fële ñu di ko duppee ak li nga xam ne moom lay def fii ci Kajoor yàlla na ko yàlla kàttanal ba mu yegg ci loolu lu mel noonu nag bu ko nit dee def ci ab gox defalu ko lenn lu dul ka nga xam ne moo jiite gox bi moo tax monsieur le maire nee na mi ngi lay encouragé bu baax ci jëf-jëf boobu di la tàllal loxo di la xamal ni yaay partenaire numéro un parce que lii nga xam ne moom ngay def moom la waroon moom moo war a wër samp ay école moo war a wër samp ay daara lépp loo ci def rek moom nga ko def euh, di nuyu sous-préfet euh, Cheikh Diam moom it euh, di nit ku woyof ku nii ngeen ko gise noonu jataay bu mu dem rek bala ñuy dem dafa ñaan dañu ñaan loolu lu jafe ci kilifa ca mu taxaw taxawaay boobu ca mu nekk un partenaire également bu commune bi fépp fu ñuy dem ñu ànd kon ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax moom itam aussi ci turu maire euh, di ñaan ci seen barke kilifa diine yi ci seen ñaan yàlla may ko yen bi nga xam ne moom lañ ko yen muy meewam mu woyof toy ñoo leen di nuyu ci jiital monsieur le maire di ci teg chef de village di ci teg mbooloom suñu sang yi nekk fii mooy suñu sëriñ yi ma bëgg trop jóge ci jotaayu alxuraan faran ci xëyaat yendu ci ndax alxuraan kat ci ñun jullit moo jiitu mooy diggal mooy mucc bu ñu juddoo def naa alxuraan la ñuy tudd ñu bu ñu demee ba am liggéey bi walla ñuy jàng dañ naan nañ jël big bi kat dem jox suñu sëriñ mu ñaanal ñu donte am na lu xam-xam suñu génnee àddina it yaakaar naa ne dañ naan nañ dem seeti sëriñ ñëw wala imaam bi mu ñëw jullee loolu nag ku ko xam war nga wattu alxuraan te war nga fonk kuy jàngal alxuraan dama dégg ci benn sëriñ ci benn rajo muy wax naan métier bi gën ci métier yi mooy jàngale alxuraan ndax kat dara gënul ñaaw nga am mooy jurum génn àddina ñu ne dañuy toog dañ koy ñaare di ko jàngal alxuraan donte am nga xaalis te mënoo ci livre mënoo cee tari benn araf loolu tam ci gàcce la bokk moo tax nit ñi nañ dem jàngi alxuraan te jàng wees mun nit ñi dañuy toog di la jàngal rek nga naan ñi dafa gaaw ak lii dafa yéex soo ko mënoon jàngal ka say njaboot ñu mën ko doo woo kenn ñu jàngal yéen yéenay toog jàngal ko seen i waajur wala seen doom wala seen i dëkkandoo ñu wax nañ importance su njàng alxuraan man nag du guddal di leen wax rek ni leen Sénégal lii la xam jàmm soo gisee nit ñi tiit parce que dañoo xamul ay sénégalais xamul lu bon sénégalais xamul lu metti su ma déggee ñaar nit ñi dañoo changé ndax li ñuy wax nit ñu bon ñu ñoo ëpp déedéet ndax am kay nit ñu bon ñu ñoo ëpp lu ñuy wax waaye Sénégal li fi yàlla def ak sëriñ ñi fi yàlla def ñi baax abadan ñooy ëpp ñu bon xëy na nag kersa mooy dal ñenn ñi ñenn ñi tam bañ ku leen dépassé moo tax bu ñu wax moo tax sëriñ ñi fi ne yëpp ak ñi jàng alxuraan ñi ñëpp ñoo leen di ñaan ngeen ñaanal dëkk bi am jàmm ndax jàmm ci lay waxe ñu ngi yëkkati kàddu gi ci turu Serigne Mokhtar Narlo li nga xamante ni moom la yàlla nattoo jiite jàngukaay bee ñuy tuddee daaray Kokki sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee daarul alimil xabir bëgg samp sëñ daam Abdourahman Lo këram gi nekkoon daa daarul alimil xabir moom la ko jox génn këram kenn ku nekk xam na ni sëriñ Tuubaa fu mu nekk këram kër kër kër gën la fa nekk mooy la gën mu bàyyi ko jël sëriñ daara jox ko ni ko toogal jàngale alxuraan yar nit ñi nàmpal leen ci diine yamul ci loolu li may bëgg a wax foofu lay ñëw yamul ci loolu ndax nit boo ko joxee daara samp ko danga nga kaa war a assister da nga war a taxaw dafa ko samp ba noppi woo seex sépp mu ñëw Cheikh Issa Diène Cheikh Ibrahima Fall ak Cheikh sëpp ni leen dee leen ñaq di ko jox dee leen ñaq di ko jox kon ab sëñ daara noonu lañ koy taxaw ab sëñ daara dañuy fexe ba xelam dal ba bu toogee lim bëgg a def ci xale yi mu def ko ci yar leen nampatal leen ci diine nampatal leen ci lislaam def ci ñoom ay jukko yoo xamante ni ëllëg danañ jomma def yenn yi ci aw ab ci ab société daara nag mission la mission bi mën nañ ko résumer ci ñett mooy daara li ko tax a jóg mooy jàngale daara li ko tax a jóg mooy yar daara li ko tax a jóg mooy yeete mooy li sëriñ bi doon wax huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaab mm-hmm. ñett yooyu mooy mission daara mm-hmm. jàngale nag daara nag la sëñ Ahmad Saxiir Lo daan wax moom lay yebe sëñ daara bi nga xamante ni moo fi nekk daf daan wax ni daara xiif du ko tas mm-hmm. daara mar du ko tas daara rafle du ko tas waaye daara ñàkk jàng rekk a koy tas ñàkk a jàng rek mooy tas daara kon na fe na fexe ba góorgóorlu ci njàngum xale yi xale yi nañu fexe ba ñuy jàng leneen lu leneen suñu boroom moo ko garanti moo la ko garanti yitteem wër te nekk ci dara kiy jàng mutakaffilun rizqa alladi yataallam laa tastaxil bi rizqi is rabbul wara mutakaffilun rizqa alladi yataallam kiy jàng yàlla garanti na ko lépp boo fekkente ni li nga war a nekk sax nga ci mooy xëy nekk ci xale yi gont nekk ci xale yi guddi nga nekk ci xale yi njël nga nekk ci xale yi amal kóolute ni sa lépp dana jàpp asalaamaaleykum di leen siyaare di leen màggal di sàkk ci yéen ñaan di leen ñaanale di jot li kàddu yoo xam ne dafay bàyyi koo ci suñu kilifa te ci jiitu mooy Seex Muhammadul Muntaqa ayyadahu Allahu wa nasrahu wa hafizahu wa rahaahu te ca toppit mooy Seex Abdou Latif Diène toog jataayu Cheikh Issa Diem radiallahu taala anhu di am ay kàddu yu seede rek yoo xam ne dañ koy seede ci dëkk bi ngeen ñëw ak ñi ko dëkkee woon ak ñi ñi wër dëkk bi ak ñi ko dese ba fi mu ne waaw ah, sëriñ Sidi Ahmad Dieng ñëw na fi fi la yeddu dëkk Tiwaawoon di dund ci tarixa boobu dañu wax ne moom mooy xalifa bi ndax moo mag ci askan bi euh, tàggoo na fi dem ngir ay yitte sëriñ Mbàkke nag nii nii moo bokkam yi mooy magam yi magam yi ak rakkam yi ak doomam yi ak mbokkam yi fi nekk yépp noonu rek lañ koy tënkee am na ak cant goo xam ne da ko jël jëme ko ci mbooloo mi tam jar ko lool ndax dafa woote ci yàlla mu wuy si ko ci yàlla istajibu lillahi wa li rasuli isa daakum li ma yuhyikum ndax daa woote ci yàlla lu ëpp ci nit ñi wala ñëpp sax jóg ngir wuy si woote yàlla bi bën dikkeet loolu lañu fi fekk kon layal na jataay bi lay woo xam ni wu dëgër la ndax jataayu alxuraanul karim màgg na rëy na sunu mbokk yu tedd yi lépp lu mat a wax wax nañ ko fi loolu kenn du ci delluwaat ci benn baat ndax li sëriñ Mbàkke ñuy di jàmbaar waaye sii di bit borom pas-pas la borom pas-pas la mooy boo dundee ak moom nekk ak moom diir bu gàtt di nga xam ni kii du nitu caaxaan borom pas-pas la te loolu dina dëgëral bëggu sëriñ Mbàkke mii suñ mbokk yu baax yi pas-pas boobu moo leen yëkkati da waxtaan nañ fi loo xam ni képp koo xam ne bëgg ngaa dégg dëgg di nga ci mën a jariñu bu baax ci biir ak ci biti ah euh, préfet ak sous-préfet yéen ñi fi teewal euh, monsieur le maire yéen ñi fi teewal borom réew mi duñ leen mën a ñàkk a sant duñ leen mën a ñàkk a gërëm ndax sonn ngeen ci daje yi nitu daara du ko ndaw nitu daara du ko ñàkk fayda ndax diine dafa yàgg fii ci Sénégal fam jaar ba egsi ci réew mi ay jaaruwaay yu bari la waaye mel na ne ni ñu koy dunde fii ci Sénégal doxin la woo xam ne doxin woo mën a mayee jàmm la muy toroxu yi lus mënta sikki sàkkalaat ci ni luy àggale nit ci yàlla la ndax wax naa ne léegi mën nañu dem ba président bi président bi di jiitu tare alxuraan mën nañu dem ba mécanicien bi di jiitu jumaay bi loolu gis naa ci ay mandarga jóge naa war a dugg ci benn euh, benn biis mu dem ba ci yoon wi mu paan ñu taxaw di julli li ñuy wooyee emprunté fii Sénégal ñu xam ne li ci ëpp ci li baaxoo mooy saaga ak xeex moom moo taxaw jiitu juma jiitu jiitu jiitu julli géej kon li mu wax mel na ne buñ góorgóorloo danañu delluwaat ci sunu cosaan ndax diine cosaan la loo xam ne lu yàgg la ndax euh, euh, emprunté boo xam ne biis bi daa daw ba taxaw mu taxaw jiite jullit gee maxaarijul xoroof bi ak xameen wi ak yëpp nekk lu leer loolu dana am lu mu def ci nit ki ci ni ka doomu aadama ndeke dañ ko war a yar ndeke bu xamee boppam daa war a yaru daa war a dellu ci li nga xam ne l'islam noonu la wàccee war di dox ba egsi ci euh, suñu suñu réew yi ak sunu maam yi ndax euh, euh, nañ ko doon doxee rek démb noonu mooy dëgg lu ci soppi ko rek noonu ñoo ko soppi waaye moom la fi nekkoon bind nañ bàyyi fi wax nañ bàyyi fi jàngal nañu ay nit yar nañu ay nit bañ doy leen ñu wóor leen wisaar leen ci gox yi loola ba na gën ni loolu mooy li nga xam ni moom lañuy ñuy doxal